moom mi nu may nu tooge woon bis bii daaw mu sàmm ci coobareem ak ci iraadaam ak ci mësi am ba ñu fekke waat ko ren ngi koy sant ci loolu taxawati ci kanamu sukkaat di ko ñaanaat yàlla na may nu dund ba fekke waat ko déwén ak li ñaanit ñi fi yàlla jële ci diggante bi yàlla leen yërëm ñi fi teg ay metit tawatit yàlla ko teggi yim fi teg ay nattu it yàlla leen ko teggil di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moo di sayyidul xalaaiq di ñaan yàlla yàlla dolli ko leer te yàlla may nu sax ci gannaaw di topp ay sunnaam di dolli suñ kóolu ci ki nga xam ni nun taalibe yi murit yi lu nu am ci yàlla am ko ci yonent bi darajay Seexul Xadiim moo nu ko may ñu ngi dolli suñ kóolu téef ci moom dellu di ko ñaanalit yàlla yàlla dolli ko leer te dolli ko ngërëm loolu nag moom moo wax ni képp ku gis loo xam ni ñu nga ma koy askanale bala ngeen wax dara na ngeen ma ñaanal ñaan bi ci lu ñuy ñaanal ku def lu baax di bu baax suñu Mor Gueye mi nga xam ni ndigal lii moo ko jotan bari na màggal ak jàng yoo xam ni boroom moo bëgg jëf lu baax di ko def waaye jii moom ndigal la lu bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Mamoun Mbakke jaar ci cheikh Mouhamadou Mbakke ñu jox ko ndigal cheikh Mouhamadul Mamoun Mardiyu mu di ko wéyal ba ku ko fi toogal ànd caag moom lépp lu mu am ak lépp lu man mu di ko ci def dencalul dara lu dul bis bii bu ñëwee ñu jàng ci alxuraan lu bare bare bari ndax alxuraan moom kenn lu ñu ba mu doy ndax lu doy waaye mu jàng ci lu bari lool jàngul ci lu bari lool ndax loolu mooy cosaanul bis bi e, bis bi nag dañ ko amal tudde ko cheikh Mouhamadul Mamoun Mbakke cheikh Mouhamadul Mamoun di doomi maam cheikh Anta di ki ko jëkk wuutu itam cheikh Mouhamadul Mamoun di ko xam ni cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo ko yaral boppam mag ñi nga xam ni nekkal nañu moom ci kër gi ñépp ànd nañ ci ni Mouhamad cheikhu lañ ko daan wax maanaam Muhammad moom maam Cheikh Anta waaye wax nañu ni sëñ Tuubaa moomu di bind ci aw këyit joxe ko ñu yót leen ko ko nee leen ko Muhammadul Mamoun al Marwiyu la tudd mooy Muhammad mu ñu wóolu mi ba noppi gërëm ko sëñ Tuubaa ko yaral boppam ba yewi ko maam Cheikh Anta di Cheikh Sidil Muxtaar di waajuram maam Cheikh Anta Cheikh Sidil Muxtaar la tudd waaye moom la Serigne Touba jëkk jëkk jëkk jox juróom ñeent fukki nit ak lu topp téeméer bu manqué la ca topp wuute am na ci waaye quatre vingt yi moom mat na booba yoon wi téeméeri nit lañu juróom-ñeent fukki ak nangam Serigne Touba teg ko ci loxol maam Cheikh Anta dëkk bi mu jëkk a sanc nga xam ni dëkk boo dégg ñun la Serigne Touba nekkal na fa lu jiitu Daaru Salaam kër la fa am ci kër maamam wala ci kër baayam waaye dëkk bu mu sancal boppam li ñu tuddee milkiyatul nafs di moomeel goo xam ni ci loxoom lay daw daaru salaam ci mag daaru salaam boobu ci mag moom la jëlaat jox ko maam Cheikh Anta boole ko juróom-ñeent fukk ak nàngam booba maam Cheikh Anta mu ngi toll ci vingt ans donte ni am nañu ñu wax dix-huit ans waaye vingt ans yi moom wér na vingt ans nag ku ko am ci zaayir ndawe nga lool ñu jox na juróom-ñeent fukki nit ak làngam ak dëkk bu toll ni Daaru fekk nga am ñaar fukki at booba kooka kon sëñ Tuuba xool na ko ba xam ne at yaa toll noona waaye gëm pas-pas baag ngëm gi ak nga am yàlla ni egg na foofa ñu jox ko dëkk boobu maam Cheikh Anta nag xam ngeen ni mas na am benn bis am ñu ñëw fi sëñ Touba kilifa yi ñu bari maam Cheikh Anta bi mu dugg see xaj ci biir néeg bi ndax bassin yi mu sol bi mu ñëwee toog am ñoo xam ni ci seeni xel ñuy wax ni ci seeni xel waaye sëñ Touba loo wax mu xam ko ci seeni xel ñu naan ah sëñ Touba de ku fiy ñëw war a mën a bañ solo nii. waaye nag waxuñu ko ci làmmiñ ci xel lañ koy wax waaye sëñ Tuubaa loo wax rek ci làmmiñ ak ci xel ñooyam ñu toog ab diir fekk lu mel ni ab doom nekk ci ruum bi seen Tuubaa dal di nii doom bi laa bëgg ngeen jële ko fii yóbbu ko ca biti ña fa toogan ñépp kenn ku nekk jóg donte ni la nga sol jàppoo woon ni lu riis lool la waaye dangaa duggoon dem di ko summi ji ngir bëgg a sol lu xaw a yemamaay pour man cee ëmb doom boobule waaye ba ñu jógee dem di ko wuti maam Cheikh Anta garambu bi bassin yi mu salan moom la summi tibb doom bépp sotti ci yenul ko boppam dem tuuri ko del si toog salaat yére yi mu takk ripp eh, ab doom mu toog nit ña door a ñëw fekk doom bépp ñu tuuri ko kone ne laaj sëñ Tuubaa ni Cheikh Anta de moo ko tuuri ñu ni fu ko def ñu ni ci ay yére mu jóg taxaw yére yëpp tilim sëñ Tuubaa ni leen li ma leen bëgg na xamal mooy Cheikh Anta yére yu rafet yi muy sol jubluwu ci bëgg àdduna bëgg a xam ni taraanga fi man mii la nekk képp la koy defee waaye gis ngeen yéen ñi yi ngeen sol dem ngeen di wuti yu ko xaw a yem maay pour tuuroo ko moom mu jël li ngeen deni moo foor sotti ko ci dem tuuri ko gisul yére yi man la gis daa bëgg fu mu taxaw ku ko xool xam ni kii fa mu jógee yàlla nga fa waaye talanga fa noonu la maam Cheikh Anta doon dundee kooku mooy waajur Cheikh Mouhamadul Mamoun maam Cheikh Anta moomu mooy ki njëkk a fii ci ndigal loo xam ni sëñ Tuubaa ko wóolu mu fekki ko Gabon sëñ mën dagana la sëñ Touba yebal ba mu fa demee moom la yebalaat ni ko demal wooli ma Seex Anta sëñ mën loo moo li nii ba ma joxee la ko sëñ Touba ba noppi ba jàmmante la ma jëkka laaj mooy ana Seex Anta ma ni ko ma nga fa de mu ne ma Seex Anta de naa ko lool sëñ mën loo na lii la ma sëñ Touba jëkka wax sëñ Touba di dem ci géej gi doon Daaru Salaam mooy ji mu ñibbisee waaye gëne bi sëñ bi dund daawuñu ko daje gii nag 1902 daje nañ ko ci Daaru Salaam ci ndigalul sëñ Touba. sëñ maam Cheikh Anta it moo toog ak sëñ màggal bis bi maam laa siyaare ba noppi jóge fa jaar ci seen Touba tàgg ko bis bi nee seen sëñ Tuubaa dañuy teg ba yàgg mu ni ko waaw jox naa la ci ndigal ne bu fekkee ni da ngeen cee jàng alxuraan ba mu doy ba ba mu bari wax naa leen ko alxuraan du doy boole caag di tudd yàlla boole caag di ko jéggulu boole caag di jéggulu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noonu yi ngeen ko ni dee defee jox naa la ci ndigal magalub daaru salaam ci làmmiñu sëñ Tuubaa la bàyyi ko dugg ci nopp maam Cheikh tabarakallah maam Cheikh Anta kon xam na ni am na ndigal ca fal isnu sartun fi xubuli sànn ndigal mooy condition bi lépp lu nit di def maam Cheikh Anta nag moom it daal ko ni comme am naa ci ndigal man it daa am lu ma la bëgg a ñaan mu ni ko mooy mu ni ko damaa bëgg ku ñëw ca bis boobee buy dellu fa mu jógee du yóbbaale bàkkaar sëñ Tuubaa ni ko warlul nañ la ci ku fanaan daaru ngir màggal bis bi ma dellusee waxtu woo xëyee di ñibbi toqantalu bàkkaar toppatu la jéggal nañ la ko ci kattanu yàlla xaw ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. man la man sëñ Tuubaa lillaahi yàlla rek jaamu. abdan jaamam laa doon xadiman li rasulillah du ma la jéem kenn ku dul rasulillah ñu ne ko waaw mu ni inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li malikin mutarra man maay ku leen jëkk fekk fii ngeen colonisé ndax moomu ñu ko woon mais ñoo ko notal ma fekk leen fi wax leen dëggu yàlla gi jàmm jëkk ci jàmm mujj ci ma delluwaat ci jàmm ci man ngeen koy jëkk amee ci man ngeen koy mujj amee ñu ni ko boo dee ñibbee rek baax mu dal di door a waaj nag jël baso ba ko indi ànd ak sëñ mët dagana sëñ mët loo dagana nee na bi nu ëgsee ba war a yéeg ci baso bi nee na man maa jëkk yéeg di xool ndax ay salteg ci pour ma bale ko nee ba lépp noppi nee na ma taxaw di xaar sëñ bi nee na sëñ bi ngi taxaw jël benn tànkam teg ci pied bato bi bàyyi bi ci des ci suuf nee na ma ne ko ahmadu bismillah nee mu ni ma ahmadu nee ma ni ko mbàkke mu ni ma xanaa déggoo géej gi ak suuf si ku ne li ngay wax mu ni ko ah, man mbàkke mun ma dégg waxi géej mun ma dégg waxi suuf mu ni ko sama tànk bii ma teg ci géej gi sama tànk bi ma teg ci suuf dafa yuuxu ni boo teggee bi ci des ma alko may bëgg a tedd bi ci géej gi géej gi yuuxu ni ma boo ko teggee ma alku ci kaw bato bi bàyyi bii ci suuf si mu ni ko léegi nag mu ni ko ahmadu xanaa xamu ni man du ma tas yaakaar yi mu ni ko mu ni ko fii daal laay taxaw def nii ba keroog dogalub yàlla di ñëw sëñ Mat Lo moo ni cëpp daal koy turgoon dugal ko ci bato bi ni ko leen gamoo gi la judduluwul ñoo bëgg nga def fi rawatina Sénégal gi la juddulu moom la sëñ Moussa Kanaan nee na keroog suufus gamam sa jooy na ngir jaamu yàlla gamu daan am jeex la waaye géej ga di bëx bëxi di fuur di duusu jinne ya bokk xàccu bambay seet bato bi départ jëm si Dakar sëñ Tuubaa nee na bi bato bi départ nee na njol màkkas yi ma sol yëpp dama cee ràngal médaille baatin médaille bu mujj ñëw di ngërëmam ba nee na su ma yéree fees del foo teg sa loxo rek médaille bu ma njol màkk takkal la nee na Eh, ahlu badrin la ñu escorte moo tax mu sàkkanaan gaa yi badar ya dar ko muy bandaaru leeram nga jolli na ba sar ndakaaru leeram gi wër na géej gi dem ba penku dem soo ànd naa ci kuy yuy fenku leeram gi sar na asamaaw ba jabaroot sar na ci biir suuf dambi mul koog malakoot jalaala jox ko ay jalaala nooru jamaala won ko ay jamaala njool màkka rang ko mi daay yu dootul cekkeeku la borom kun bato bi départ sëñ Basiiru Mbàkke wax na ci Minanul Baaqil Xadiim nee na fukki fan ak ñeent la bato bi daw diggante pooru Libreville ak pooru Dakar waaye bi mu teeree def nañ ay heure wóor ñi teel seen sëñ bi ndax sëñ baa ngi ci biiram déet dañoo toog ba yàgg rek am benn tubaab bu ni cëpp cëpp ñetti escalier taxaw daal di ne ana Seex Anta borom mu ni ko maa mu ni ko wuyul sëñ Tuubaa maam Cheikh Anta nee na bu ma néewoon gàllaaj fa lay dee ndax jëkk ji ma nar a jëkk ji Sëriñ Tuubaa te ñëpp na ko nee na ma ñett gis kay yéeg nee ma ñëw maa ngi fekk Sëriñ Tuubaa toog jublu penk sol mbaxanam curi cala bokk kaamilu alxuraan ci ndeyjooram bokk ful ku maasoon ci càmmoñam téye kurus gi di wér nee na ma ne yurub ci biir ak basay ma sol sut raam ba agsi ci sëñ Tuubaa jox ko loxo sujjoot ci loxo bi ñett yoon ni ko mbàkke yaanu sagal mbàkke yaanu siggal boo dil si waatu woon ci réew mi mu dootu fi jar ñaar dërëm ne sëñ Tuubaa ni nit sama ko ba mu dëgër ma seex ma ni mbàkke mu ni ma seex ma ni mbàkke mu ni ma seex ma ni mbàkke mu ni waat naa wàcc naa wàccaale naa ku ma yaakaar yal na ci yàlla dugal ñun ñëpp ci kàttan waaye di sant bu baax sëñ Jili Mbàkke moom sëriñ Modou Mamoun di sant bu baax sëriñ Sidi Mbàkke di xalifam sëñ Amidou nga xam at mu jot mooy ànd ak jiite délégation bi bàyyi ko Daaru Salaam ngir ñëw présider bis bii ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu nu ko santee dañ ciy boole ñu mu àndal ñëpp di délégation te mu ànd koog sëriñ Amidou Mbacke ànd koog sëriñ Abo moom sëriñ Modou Mamoun ànd koog sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoulaye sëriñ Moustapha Abdoulaye moom sëriñ Amidou ànd koog sëriñ Moustapha Saliou ànd koog sëriñ Maam Cheikh ànd koog sëriñ Modou Roqe ak sëriñ As Mbacke moom sëriñ Amidou. waaye ànd koog sëriñ Saam ànd koog sëriñ Mamoor Touba Toul ànd koog sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Omar ak mboolem délégation yi ko àndal yëpp tey bi muy ñëw bokkam yooyu mu àndal mbir mi rëy ci ñoom lool rëy ci bàyyi moo ak njabootam ba ba ñu jógee sëñ Alaaji moom sëñ maam sëñ maam Mor bu sëñ Bassirou Kane rob naan Alaaji maam Mor Touba Toul ñi ñëpp ànd sëriñ bi ñëw ci bés bi bés bi sëriñ Cheikh Lo Ndaam ak sëñ Abdou Karim Kane moom Touba Kane sëriñ Aliou Guèye sëñ mii xalifa sëñ Mor Alima sëñ Basiru Lo Ndaam sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Lo ñoom ñëpp ànd nañu ñëw teew si bés bi ñu leen di sant bu baax di sant mboolem njabootu maam Cheikh gi ak cheikham yëpp bàyyi moo ko njabootam ñu leen di sant leen gërëm waaye di sant njabootu boppam gi te di ci fàttaliku bu baax sunu wajur wa di Ajaa Ummi Tàll di ñaan yàlla dolli yërmande ak jéggal fa moom fa mu tëdd ak mboolem jiit bu mu fa fekk ak boo ko fay fekk waaye di sant bu baax soxna Aïssa Traoré ak soxna Mariam Thiam ak Adja Fat Diagne ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ñoom ñuy wéttali baay Mor di ay wéttalam waaye di sant njaboot gépp dala ko ci sëñ Maxtaar Gueye ca Bamako muy taawu kër gi ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant bu baax sëriñ Modou Guèye di sant sëriñ Moustapha Guèye di sant Alaaji Malick Guèye Diadi di sant soxna Astou Guèye di sant soxna Mati Guèye ca États-Unis di sant soxna ji ay Aysatu ak mbooleem ñu njabatu njabootu Baye Mor gépp ñu ngi leen sant leen gërëm waaye di sant bu baax sëñ Baye Cheikh di sant bu baax sëñ Malay di sant bu baax sëñ Amdi Mignon di sant bu baax sëñ Makhtar Guèye di sant bu baax sëñ Thierno Gueye di sant sëñ Am Gueye di sant sëñ Mortala Gueye ak sëñ Makhtar Gueye waaye di sant sëñ Omar Gueye ak njabootu baay Modou gépp gépp góor ak jigéen ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ndax bés bi seen taxawaay rafet na ci xam ne seen baay bés bi rek la am xam ne seen baay bés bi rek la bëgg ñi leen di sant leen gërëm di sant seen i goro yu góor muy ñi nga xamante bi ñooy goro yi baay Mor te jël ci njabootam bu jigéen gi Baye Mor ne mi leen sant leen gërëm di gi. di sëriñ Papa Kan mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye di gërëm sama waajar sëñ Xabaan Jaxate ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm sëñ Mbay Caam di gërëm sëñ Lamine Senghor di gërëm sëñ Cheikh Kayta waaye di gërëm sëñ obar Ngom ak sëñ Xaadim Gay di gërëm sëñ Amadou Sall di gërëm sëñ Ousseynou Gueye ñii ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di sant soxna yi fi ñëw ci kër gi ndax góor ñi ci kër gi dañoo dem jëli soxna indi ci kër gi ñuy sëy ñooñu kay seen xalifa di soxna Mariane Seck xam naa dina tax Modou Gueye bég lool waaye Modou ba Mariane laa njëkk jëkk tudd ndax ku ko tudd <laughs> dana métti lool ci yow ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax di sant soxna Ami Sène di sant soxna Abi Gueye di sant soxna Khady Ndiaye di sant soxna Oumy Tall di sant soxna maam Younous Sarr waaye di sant soxna Ndeye Safi Badji waaye di soxna soxna Fatou Bintou Ndiaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax a baax a baax waa Kastoor ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ñuy dëkkandoo yoo xamante ni kenn ku ne da ngaa génn sa kër ne jox ko ko Baay Moor ak ak ay ganam mboolem gan ñi ci kër gi lañu wàcc fa lañu dal ñu ngi sant bu baax Alaaji Jóob ak Moodu Fall ñu ngi leen di sant bu baax ci goro yi kenn fàttewu leen waaye di sant bu baax dëkkandoo yi njabootu sëriñ mustafaa Diouf ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm at mu jot sëñ bi këram lay dal di sant njabootu Banno Aan njabootu Soxna Jeynaba Siise njabootu Alaaji Ibrahima Sène njabootu Adja Nafi Nafi sa Jaw waaye njabootu Adja Fat Ndiaye ak njabootu Adja Ndey Pay ak njabootu Adja Xadi Nduur ak njabootu commissaire ndaw ñu ngi leen sant leen gërëm waaye njabootu sëñ Jabel Diop ñu ngi leen sant ak njabootu sëñ Kéba Fall ak njabootu soxna sañ Fama soxna Fama Fall waaye Adja Ndeye faatu Sallit ñu ngi koy sant bu baax ci booli ginaar yi ak michu yi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a wax dëgg yàlla di leen gërëm leen ñaanal yàlla bu baax a baax di sant mbooleem ku dëkk Kastoor di fi yeewoo ñu ngi lay sant ñu ngi leen di gërëm bu baax di sant it mbooleem ku ci bés bi te bés bi laa jóg ngay góor di jigéen mbaa mag di ndaw ñu ngi lay sant bu baax képp ko doon tànt bi mbaa nga yéene woon te mënoo ñëwit bàyyi ma ko njaboot ak leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Tawfekh Production euh, et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.